salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di juddu ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di sant suñuy waajur du nuyu Sénégal yépp di ñaanal yàlla na yàlla ñépp am jàmm di wax ci affaire beneen affaire aussi xam nga ay jamono dañ fiy dégg nervi mais tey ku ne xam na ni ki nga forme mu nekk un professionnel ku mel ni man tey dañ ma formé en en Europe tey bi ñu ma formé euh, euh, formation professionnelle bu ñu ko defee ci yow xam ne xamul day ñëw rek bu ñu ko nee tëll mu ne rëjëx mais tey ki ñu formé man tey formation bi ñu ma formé man tey euh, du ñu dóore du ñu saaga du ñu yuuxu même ci structure yu ñu doon liggéey tey bu ñu gisee lu ñu nakari dañuy ñëw waxtaan ak yow moraliser yow parce que ki am droit jël te sax ñoom du ñu dóore mooy police wala gendarmerie ñoom ngay woo ñu ñëw arrêté yóbbu kon nag tey lii ñu def nii tey bu ñu demee ba am ci convention ak état lu mel ni 3FPT lu mel ni ay ANAMO ay direction de l' emploi ONFP tey ñu ànd ak ñoom di ci liggéey tey c'est c'est la formation professionnelle tey association FILS li ko tax a jóg mooy former les jeunes pour ñu nekk des professionnels du ñu dóoree du ñu saaga du ñu def violence nervi moom la ñu bañ a déggati léegi li ñu bëgg mooy mbër yi nga xam ne formé nañ leen tey te ay professionnels formé leen parce que ki leen formé képp koo xam ne rek tey tu es un garde corps rapproché au Sénégal moom moo la moo formé muy fit professionnel di Matar Diop kon nag affaire nervi association FILS loolu tax koo jóg association FILS kay li ko tax a jóg mooy dindi fi li ko tax a jóg mooy former les jeunes ba ñu doon ay professionnels loolu moo ñu tax a jóg te loolu ñu ngi ciy def suñu képp laay kàttan état di ñu ci accompagner mais nervi moom fii jëmmi jamono incha allahu rabi duñ ne mën nañ ko fi dindi ba mu jeex de mais dana wàññeeku wàññeeku ba am doole incha allahu rabi te loolu lañ bëgg nag état accompagner ñu ci ba loolu ñu xeex ko mu jóge fi képp ku ci ànd teg sa VIP du dóor ak saaga moo la tax a jóg mais nit ku ne nga droit protéger sa VIP pour ñu bañ koo gaañ sécurité lu am solo la. dama bëgg Sénégal xam loolu noonu formation yi bëri na yépp baax na mais sécurité am na solo ndax tey toll nañu ci moment boo xam ni les lutteurs ñu ci bëri ñu ngi leen nii ñu ngi leen di wax ñu ngi leen di woolool ci seen ay zone tey euh, am na ci ñoo xam ne zone bi ñu dëkk amul ay poste de police mais ñoom ñu ngi jéem a xool nu ñu structuré woo def GIE boo xam ne ay professionnels la ñu nekk képp ku fay ay agresseur ak ay sàcc ak yooyu noonu yëpp ñu ngi jéem a seet nuñ ko fa nuñ ko fay nuñ ko fay jëlee kon nag loolu am am na solo tey ci kàttanu yàlla. ñu wax ak euh, sénégalais yi ci loolu waxak ak monde xamal leen ni daal affaire violence affaire nervi ñun taxuñoo jóg ñun lu ñu tax a jóg mooy former xale yi ñu doon ay professionnels.